waaw alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di jul seenti yàlla ma sallallahu alayhi di nuyu jaamu yàlla yëpp ak ñuy suivre ñëpp waaw ñu ngi ñëw rek pour leeral si mbokk mi ñuy wax tuubaay si ay njumte yu ñu gis mu def ko si gàmmu gi si gàmmuwaat bi ah. waaw comme ko defalee woon ay leeral ci jamonoy mawlid bi ci njumte yu gisoon ci moom donte la nag mbir yi du noonee du dara mais bu ñu gisee ay njumte ci moom faw ñu euh, wan na ko fii juum nga surtout mu nekk ay njumte yoo xam ne ci abiyaatu na Cheikh Ibrahim la koy tënk te baytu bàyyi yaakaar naa ne ñun ñëpp ñoo ci yem yaakaar naa ne képp ku nekk ci biir faydu bi am nga ci wàll boo gisee lu koy yàq tamit war nga boo ci amee ak defar war nga cee mën a wax boo ci amul ak defarit war na la nga wax ci war nga nga jéem ci comme ni yonent bi jàngale woon ci hadis bi boo gisee lu ñuy yàq ci diina ji ah, façon yi nga ci mën a euh, jihaatee pour mu dañ façon yi nga ci mën a xeexee waaw liñ gis nag mu def ko muy njumte si gàmmuwaat bi muy bi muy firi fa min nuurihil kawnaani minhu tafajarat ulumu jamee rusli wa kullu yasrabu euh, firi bi baaxut firi bi baaxut ni mu ko firee baaxut ndax euh, boo xoolee ci firi bi sax mu ngi daay fal usaas di wax ne bu fekkee ne usaas yi dañoo firee wax ji ne fa min nuurihil kawnaani mooy euh, kawnu àdduna ak alaaxira mu ne loolu bu fekkee ne usaas loolu rek lañ ci ñun taxul ñuy topp sëriñ bu fekkee na nga topp sëriñ mu firee ko nii mu ne no kon jaru ñu lay topp ndax ustaas yi nekk si koñ bi xam nañ waa dafa am lu lu ñuy wax euh, yonent bi dafa am zahir am baatin comme ñoom nag xàmmeewuñ baatin yonent ak zahir yonent xàmmeewuñ loolu xàmmeewuñ sariya xàmmeewuñ xaqiqa dañuy jël sariya firee ko xaqiqa jël xaqiqa firee ko sariya des fois nag ñu jël lépp firee ko xaqiqa sariya xàmmeewuñ sariya xàmmeewuñ xaqiqa xàmmeewuñ dara ñu nekk foofu loolu lañuy loolu lañ mën te loolu lañ xam ndax seen sëriñ bi maam dafa jël lépp moom xaqiqal ko mooy loolu mooy waral fépp fu ñu dégg xaqu rek dañ naan yàlla la loolu mooy seen problème erreur boobu la ñu am moo tax xàmmewuñ yonente sharia xàmmewuñ yonente xaqiqa moom tuubaay wax na ne fa min nuurihil kaw naanu minhu tafajjara mu ne dangaa war a xam maanaam kawnu gu njëkk gi lan la mu ne kan la sax la wax kawnu gu njëkk gi kan la waaw xam naa ne nag nit ñi ñu ngi wax ne ñun dañ koy suivre dañ koy suivre bu baax waaw dañ koy suivre bu baax suñu soppee la ku baax la moo tax bu juumee dañ koy corriger comme que dañ koy suivre bu juumee dañ koy corriger mu ne kawnu gu njëkk gi kan la dedet la moy salay ne kawnu aram kum don lolou rek erreur la ko nugu jëkke kan la boné lal la muniko d'accord waye kan la kan la foko tek fo tek ne ko nugu kan la ak nu ñaareel gi kan la waaw lolé ñu la ci xaar bu fekk am nga ci lay mu war nga wara xam ko nugu njëkk gi moy lan ci univers bi ko nugu ñaareel gi moy lan ci univers bi mu ko nugu xam da nga wara xam ko nugu gi moy lan ci gi moy lan ci asaman ko nugu ñaa gi moy lan ci suuf ko nugu gi moy lan ci suuf kawnu gu njëkk gi mooy lan ci jaww kawnu gu ñaare gi mooy lan ci jaww mu ne nga war ngaa xam kawnu gu njëkk gi mooy lan ci zahiru nit kawnu gu ñaare gi mooy lan ci zahiru mu ne war ngaa xam kawnu gu njëkk gi mooy lan ci baatinu nit kawnu gu ñaareel gi mooy lan ci baatu nit lii nag ay xeetu ñàngal la rek li moom du dara xam-xam ñi nekk foofu xam nañ ne lii du lii moom du dara lii ay xeetu nganal ak ay rëyal ak ay wax ko nii rek pour tàngal pour gaa yi xam ne euh, gaa yi xaw a am yaakaar ne foofu xam-xam moo ngi fa mais lii du xam-xam tey jii ku demoon foofu laaj ko lii nii pour mu leeral la ko mënu cee leeral dara te ñoom saxal nañ ne euh, bi ñuy firi seen aaya boobu lahuma saman maa fi l ardi wa baynahuma maa taxta sara saxal nañ ne li mooy kaw nu ndax seen sëriñ wax na ko ci euh, yaakaar naa ne mooy conférence jaase bi ci Kër mu Massar wax na ne euh, lahu mooy yàlla maa fi samawaat mooy yénti yàlla maa fi ardi mooy Cheikh Tidiane wa baynahuma mooy bàyyi maa taxta sara mooy moom donte la nag xamuñ taxta sara mu ne lii moom mooy kawnu bi léegi nag lan mooy lay ne moom waxam ji moom tuubaay lan mooy lay ne asamaan dafa am kawnu waaw asamaan moom ñun xam nañ ne asamaan du kawnu asamaan matière la ci kawnu suuf matière la ci kawnu jaww matière la ci kawnu léegi lan mooy lay ne euh, asamaan dafa am kawnu suuf dafa am kawnu jaww dafa am ba ñuy ba ñuy war a génnee kawnu gu njëkk ci asamaan ak kawnu ñaareel kawnu gu njëkk ci suuf ak kawnu ñaareel kawnu gu njëkk ci jaww ak kawnu ñaareel lan mooy lay ne nit zaahiram nu la baatinam nu la loolu la moo xee lay ba ñuy génnee kawnu gu njëkk ci zaahiru nit ak ñaareel këwnu gu mu njëkk si baati nit ak ñaareel lii la mooy layam lii moom amul benn dalil fekkee am nga ci dalil nag ñu ngi lay xaar lii nag ay yàq-yàq la yoo xam ne foo ñu koy leeral foo ñu koy leeral pour nit ñi xam ne lii du dara lii ay ay ay xam yu ñuy créer la rek du dara ay xeetu ñàngal la du du tus du xam-xam amul benn argument nit ñi nag nañuy yeewu ci na ñuy yeewu ci yi bu baax nañuy bañ a topp xumbal bi rek tey topp xam-xam nañ bañ a topp xumbal bi tey topp xam-xam euh, lii nu mu ko tegee nii du dara na firi li bàyyi wax rek li bàyyi wax noonu la na ko firee noonu bàyyi def na fa mi nuuril kaw naa ni maanaam leeru yonent bi si moo moo amal ñaari kaw nii rek lala bàyyi wax lala bàyyi bëgg a wax kaw ni gi nag mooy kaw nu àdduna kaw nu àllaaxira boo ci amee yenn dégg-dégg mën nga koo mën nga koo mën nga koo génnee bu fekkee ne dëppoog na alxuraan wala waxu Seex Tijaan wala waxu Baay dinañ ko jël bu fekkee ne sa dégg-dégg dëkk dëppoo ak yi foo ñu teg ko ñu def ko misaan bu fekkee ne teg nañ ko si misaan te dëppoo ak waxu yàlla waxu yonent waxu Seex Tijaan waxu Baay duñ ko jël bu fekkee ne dëppoo naag moom nag ñu jël ko kon ñu ngi leen di yee bu baax ngeen bàyyi ci xel yii nii moom du dara dégg nañ ko tam mi firi euh, naa nax na zanaa zikra ni ko firee ci bànneexu bakkanam rek loolu moom du tus xëy na dinañ ci ñëw defaat ci ay leeral incha allah ñu ngi jégalu bu baax waaxiru daawaana alhamdulilah rabbil alamin